Ousmane Sonko ndax ku ne ci ñoom ma ngay daal di àddu gis nañ charge yi nga xamante ni Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp def na ko ci kaw Ousmane Sonko euh, Thierno Alassane Sall feelu ko euh, Thierno Bocoum feelu ko même euh, koo xamante ni ci société civile bi la fare moom aussi àddu ci ci mbir mi ban gis-gis nga am ci jamono juñ toll nii ak ñoom ni ñu koy interpréter jamono ji waa xam nga lépp lépp coow li boo ko xoolee ba si biir soxna Diarra dafa nekk coow loo xamante ne coow la texte hmm. assemblée nationale boo ko waxee da ngay wax politique euh, boo waxee assemblée nationale dañ lay wax d'habitude euh, ñoom toujours seen lépp dañ koy tënk ci règlement intérieur bi euh, Moustapha ñas ba mu fa nekkee loo ko mës wax danaan laan on se réfère au intérieur nañ dem ci règlement intérieur bi mu daal di tijji page bi ne réglement bi lii la wax fii lii la wax lii la wax cher collègues vous n'avez pas droit à la parole règlement bi ngi nii moom la ñuy référé daal di jël règlement bi daal di teg kon ñoom lépp lu ñuy def ci règlement intérieur la ñuy sukkandiku waaye dafa am lu am dañu dem ba benn jamono président Macky Sall ne daf fiy jëlee poste bi nga xamante ne mooy post premier ministre. Mm-hmm. mooy tout juste bi mu gagné élection présidentielle yi euh, ci euh, en deux mille dix neuf. mu ne da ko fiy jëlee jëlee fi euh, ndem si yàlla Mohamed Boun Abdallah Dionne mu daal di koy pousse ñu dem assemblée nationale léegi bu ñu fi jëlee post boobu noonu. lépp loo xamante ne dafa am rapport ak premier ministre bi dañ koy teggi ci li nga xam ne mooy règlement intérieur assemblée nationale parce que bokkatul. Mm-hmm. léegi ci kaw loolu ci la ñu dem ñu daal di dañuy modifier mooy modification bi nga xamante ne def nañ ko ci euh, loi organique bi nga xamante ne moo nekkoon euh, deux mille deux vingt bu quinze mai deux mille deux bu nga xamante ne mooy réglement intérieur ba ñu amoon ñu ne dañ koy modifier. Mm-hmm. te règlement intérieur boobu ñu amoon tey ci boobu moo bàyyi woon moo indi woon euh, ci article quatre-vingt-dix-huit am ci alinéa bu mujj ba moo tënkoon ne moo tënkoon ne ki nga xamante ne moo di. gouvernement bi buñ ko falee yees premier ministre bi am na ba ñetti weer pour ñëw def si li nga xam ne moo di déclaration de politique générale am mhm. loolu la amoon léegi bu buñ dindee loolu dindi ko bàyyi noonu léegi règlement intérieur bi ñu dem ba deux mille euh, deux mille deux deux mille douze autant pour deux mille euh, deux mille deux mille vingt deux autant pour moi bi ñu koy dellu si bi mu ko dellusee en deux mille vingt deux ñu gis na léegi dañ ko dellu si waaye demuñu jooyante ji texte ba Mhm. député fa ñu toogoo ñu ne leen attention texte bi assemblée nationale euh, kii règlement intérieur dañ ko falsifié ku ci mel ni moom Mamadou Lamine Diallo ko ci mel ni Guy Marius Sagna bind na ba bind ne leen Amadou Ba waru fee def déclaration de politique générale parce que mhm. réglement intérieur bi baaxul mais faalewu ñu leen ñu def li ñuy def léegi bu ñu defee loolu ba noppi jamono di dox jamono di dox jamono di dox ba tey ji Ousmane Sonko war a ñëw euh, assemblée nationale ñoom ñu taxaw ne ko da ngay ñëw par force léegi ban ar ban argument la ñu am dañuy dem ci constitution bi en son article cinquante cinq nga xam ne dafa ne premier dafa ne premier ministre gouvernement bu ñu ko falee premier ministre dafay ñëw ci assemblée nationale def déclaration de politique générale am loo xamante ne débat mën na cee topp waaye tamit bu ko neexee moom premier ministre bi mu sàkku li nga xam mooy vote de confiance foofu la yem waxul ñetti weer day ñëw. waxul ñaari weer day ñëw waxul juróom-ñeenti weer ñëw. dafa ne donc délai bi délai 90 jours bi moom lu ko fi indi. délai bi si règlement intérieur la te règlement intérieur jëlee nañ ko fa léegi. léegi constitution bi ñuy référé wu ci article 55 bi boobu amul délai. dana premier ministre day ñëw ce qui veut dire que tey jii su ko neexoon mu toog toog toog toog ba septembre mu doog a ñëw. Mm-hmm, mm-hmm. parce que euh, article yi nga xamante ne ñoo ko tënkoon mi mi article 98. article quatre vingt quatre vingt dix sept quatre vingt dix huit ak quatre vingt dix neuf bu règlement intérieur bu assemblée nationale yooyu ñoo ko tënkoon quatre vingt dix sept bi nga xamante ne moo di wax ci déclaration politique de générale bi quatre vingt dix huit bi di wax ci li nga xamante ne moo di motion de confiance bi quatre vingt dix neuf bi di wax ci li nga xam mooy motion de censure bi yooyu yëpp dañ koo dajale génnee ko bi ñuy génnee poste def loo xamante ne defuwul. Mm-hmm. moo tax le député Guy parce que moom yàgg naa taxaw ne leen bindoon na Amadou Ba ne ko yaa ngi ñëw de assemblée boo xamante ne règlement intérieur baaxul parce que fi ñu sukkandiku pour indi la foofu baaxul foo la dañoo falsifié ba député ñoom xam nañ ko bind président assemblée nationale mu ne leen waaw xam nañ ko waaye dinañ ci liggéey seen yoon nekku si parce que boobu ñoom ñoo nekkoon au pouvoir droit nag dafa am benn principe bu bu ñu wax nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude sëpp ndëng-ndëng munoo ko am ba ba noppi bëgg jee taxaw di ci di ci di ci di ci wane wala di ci di ci di ci di ci di ci di ci bombele torse mënta nekk mm-hmm. léegi li am mooy ñoom bi ñu defee loolu ba noppi comme tey ji ñoom ñoo gas ndëgg sërëx bi nga xam ne ñoo si dugal seen bopp ñoo si dugal seen bopp waaw non non seen propre piège daan parce que <laughs> amuñu ku ñu war a mere fi toll ñële li leen wax c'est très simple mhm. Guy Marius Sagna na mu ko defale woon ak Amadou Ba noonu la ko defee ak ki nga xamante ne euh, moo di Ousmane Sonko donc il est droit dans ses mhm. fa mu nekkoon fa la nekk ba tey ji mooy seen euh, règlement intérieur baaxul moo tax démb mu bind ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko Ousmane Sonko tamit tontu ko. waaye mu bind ko mu tontu ko parce que xam na ne xam naa dana ñëw ci tontu Ousmane Sonko bi parce que xam na ne tey jii fii ñu koy woonee lenn moo mën a am ñu modifier seen règlement intérieur dugalaat ma ci ma ñëw mais du ma dem ci kër goo xamante ne dañ ne kër gi waru recevoir gan. Mm-hmm. que ñoom jaar waru recevoir gan. règlement intérieur bi biir kër gi loolu lañ bind mais ma fay dem su parce que ñoom kër gi warul recevoir gan assemblée nationale ni mu mel jamono ji ak seen règlement intérieur ni mu bindoo jamono ji Ousmane Sonko mënu faa dugg. et puis le règlement bu ñu bu ñu falsifié sax mënoo ca def dara lu baax tamit. déedéet voilà. musiba naaru laa léegi nag ñoom ñenn ñi euh, li ñuy jël comme lay li ñuy wax mooy léegi lan moo waral bi Amadou Ba ñëwee ba noppi ñoom ñu def motion de censure te ñu xamoon ne bi ñu ko def boobu règlement intérieur bi dañ ko falsifié. Mm-hmm. mais su fekkente ne ñoom ci faux bi wax nañ la ne lii lu baaxul. ba sonn ñoom ñoo lànk léegi bu ñu ñëwee léegi da ngay toog nga nga gedd ko wala doo bokkati mais da ngeen ci fekk nga fekk seleen si léegi nag bés boo doxee ba jamono dox ba loolu interpellé la wala nga war see participer su boobaa da ngay jël see responsabilités mm-hmm. te foofu lañ toll fi ñu toll nii mënooy wax jubal ba pare dem ci bërëb boo xamante ne amul règlement intérieur ça wala règlement intérieur bi jëlu la en loolu ça pose problème mm-hmm. kon coow li muy bëri bëri yëpp yëpp c'est aussi simple que ça da ngay gis nag ñu bëri dañ ciy profité di jël débat bi di ko di ko déplacer naan waaw euh, constitution bi moo ko wax mu ñëw c'est une vieille tradition constitution wax na ko mu ñëw waaw moo ko wax mu ñëw en son article cinquante cinq mais ëmbu ci délai mais euh, Abdoul Mbaye bañ ko falee le 3 avril le 10 septembre la def la def déclaration de politique générale. Mm-hmm. avril mai juin juillet août septembre il est resté cinq mois. doo ko dem def ci déclaration de politique générale mais kooku toog cinq mois def déclaration de politique générale am. est-ce que mun nga ko mun ko ak mun nga ko comparer ak nga xam ne mi ngi doog a ñëw bouclé gul sax ay trois mois ci pouvoir bi nga sikkimu ko taxaw ko taxawaay boo xam ne comme si débat bi doon na am solo tey ji par exemple suñ demoon ba romb cinq mois six mois quelque chose comme ça ñu ne kii kat lan moo tax ñëwul parce que fi ñu toll nii boo jógee ci constitution bi dangay ngay jëm ci règlement intérieur bu assemblée nationale te règlement intérieur bu assemblée nationale bi ci article quatre-vingt-dix-huit en son dernier alinéa alinéa ngay gis ne ki nga xamante ne euh, moo fa la ñu war a sukkandiku moo ko pour mu mën a ñëw balaa ñetti weer di weesu nekkatu fa. Mm-hmm. kon ñaar yi complété nañ kee dana ko da ngay ñëw kee wax boo ñëwee naka lay demee léegi ki ne ko da ngay ñëw jox ko àpp ki ne ko boo ñëw naka ngay demee kooku jëlee nañ ko fa. léegi problème am na. Mm-hmm. léegi nag problème bi li koy régler simple na ñoom ñu ngi fi député yaa ngi fi mais seulement euh, normalement dinañ war dem. Euh, ci euh, bër lañ koy waxee xaw ma session bi day jeex dañ koy tëj euh, après octobre lay tijji peut-être xam naa lool la ñuy xalaat mais ñoom war nañu mën a xool naka la ñuy organiser su fekkente ne si possible ñu def ko en hors session ñu dajaloo fa xool naka la ñuy def euh, ba daal di jooyanti règlement intérieur bi su ko defee Ousmane Sonko mën fa ñëw. mais tir groupé bi nga xëy tey gis ko ci ñenn ci ñu faral ci kujje politique bi tax déclaration politique générale bi moo l ñor wala Ousmane Sonko ci boppam la ñu bëgg attaquer personnellement. waaw mais c'est normal ci benn côté parce que ci démocratie la ñu nekk. Mm-hmm. xam nga ci démocratie la ñu nekk euh, président bi bi tëb bi dëbboon bu tegee ndox ak kii yoon di dëbb sax nga ne ko yaa ngi may poussièral doo na ko yaa ngi may tooyal mais da nga naan kat yaa ngi may poussièral. Mm-hmm. loolu c'est normal ci démocratie la ñu nekk maintenant léegi nag pertinence su sortie yi loolu moo jar a ay questions. am na ñoo xam ne dañoo wax pour wax ñu balaa balaa la ñu def am na ñoo xam ne dañoo wax mais xam nañ ñoom li ñuy wax ni teguwul fenn. parce que dañuy wax pour pour pour pour exister pour nit ñi dégg leen am na ñoo xam ne nag dañuy wax pour pour nit ñi gis leen pour ñu ne waaw ñu ngay tiireeti ñu ngay def nii après ngeen occuper une journaux yi nangam ak nangam bu ko defee ñu ne waaw moom mooy opposant avec yooyu mais am na ñoo xamante ne doo leen si dégg ba tey. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne déggoo leen ba tey ñu yëy yàbbi si parce que xam nañ ne du débat. xam nañ ne lii nii du débat mais su fekkoonte ne tey ci euh, déclaration de politique général bi buñ ko deful dafay tere réew mi dox buñ ko deful dafay tere ni moo tax j'ai beaucoup aimé la réponse de Gora Khouma démb bi ñu ko laajee mu ne loolu du ay wax dong la man jëf bi laa koy xaaree <laughs> loolu la mu ne su male sax duma dem duma def dara <laughs> ay wax kese la. <laughs> waaw nga xam ne kon. Mhm. te et ni mu waxee noonu ñu bari dañ koy jël comme loo xamante ne man dama ko jëlee comme benn profane bi wax ak yu ni mel ak mais boo xoolee en réalité tey jii nga gis ko xam ne day toog seen kër ba seq dana waaye lan mooy DPG lan mooy déclaration de politique générale ñun ñi fatt nañ loolu lañ lay wax mhm. lii lii lan la ci loo xamante wax dem wax la rek. après wax dong la moo tax bi ma déggee ñenn ñi naan non Ousmane Sonko amul projet wala parewul pour dem déclaration de politique générale yaa xayti man mi nga xamante ne aw ma dara ci xam-xam aw doole wallaay bu ñu defoon premier ministre dem defi ji déclaration de politique générale lan la. ministre de l' économie day ñëw ministre des sports ñëw ministre des infrastructures ñëw ministre du commerce ñëw ñoom ñëpp dañuy ñëw ku nekk indi sa orientation ak sa politique bi ngeen waajal pour réew mi. Mm-hmm. te su ma ñëwee toog di su ma defee sama déclaration ba noppi après député yi dañuy ñëw ku nekk boo amee sa interpellation ak loo may laaj boo ma laajee dara jaara moom laa dénk ministre de de la santé question yi ñu may laaj maanaam santé bi lii ak lii ak lii jaara fa mu toog wala technicien bi nga xam dañoo nekk foofu noonu dañ may daal di bindal note ci saasi ne ma année sàngam lii ak lii moo ak lii ak kii li mu wax du lii ak lii jox ma ko ma jëlee daal di jël note bi teg sama wet mm-hmm. xool li xool ñu toogaat keneen ñëwaat interpellé ma si tali yeeg ñu toog ministre des infrastructures bu fa nekkul technicien moo fay nga gis ko mu daal di préparer note yi def nii nga dégg leen seen ginnaaw ñuy waxtaan ngurum ngurum yi non non non kii li mu wax nii nii ani note sàngam référence bi envoyé ko ak léegi smartphone yi dara jafeetul taf taf suñu paree ma dem toog ñëw taxawaat ak jàkkaarloo député yi nee na lii ak lii ak lii waa li mu wax de man de lii ak lii laa yaakaar lii ak lii du yoon kon foofu da ngaa jum loolu mooy déclaration de politique générale bu député noppee après mu jeex bu ñu demee su fekkente ne mbir mu doon bu ñuy def motion de censure ñu def motion de censure du amul dara lu extraordinaire lu fa am c'est un exercice boo xamante ne traditionnel la sunu premier ministre baaxoon nañ ko def du dara. Mhm. taxul gën fee neex déclaration de politique générale par exemple di nga ne Abdou Mbaye déclaration de politique générale vraiment. réussir woon na ko mën nga citer euh, Idrissa Seck mën nga citer Aminata Touré ñoo xamante ne seen déclaration de politique générale vraiment marqué woon na mais après seen gestion après lan la jur lu mu jur. Mhm. fu mu ñu jëmee luñ ci

biir di biir bennoo am na fay député yoo xamante ne fi ñu toll nii Amadou Ba moom moom lañ jox bopp te Amadou Ba àndul ak président Macky Sall kan moo koy porté ki ko porté léegi ñaari bennoo amatul loolu il faut que nit ñi xam ko bennoo bi dafa dagg ci digg bi Amadou Ba am na lu mu téye am na Macky ñoom ne téye na leen te biir député am na ñoom ne ay pro Amadou Ba lañ. donc benn amatul majorité assemblée. non non non non man gëwuma loolu bu ñu defoon motion bon moo am moo parce que la majorité était pendulaire ah dafa dafa dafa dafa dafa xawoon def nii. léegi majorité boobu noonu benn député bu ko fàtte Pape Diop il a fallu que Pape Diop dem rangé wu fële euh, ñu doog ñu doog a mën a am majorité bi waaw léegi benn député boobu nga xamante ne il a fallu kenn ko rangé wu ñu doog koo mën a am tey jii mais bu ñu demoon tey jii bon c'est vrai mën na am député taxawu ak unité mais pertinence moo amul njëriñ parce bokk ci loo xamante ne man dama ko voté ñu daaneel ko ma daaneel ñu daaneel ko par exemple quoi ñu ne daaneel nañ gouvernement bi ñu teg ci ñaari fan euh, président ba Bassirou Diomaye Faye tabbaat Ousmane Sonko premier ministre reconduiraat même gouvernement bi euh, ban chance la am. Mm-hmm. Mm-hmm. ban sens la am man moo tax sax côté boobu man dama naan motion de censure ban pertinence la am ci côté boobu est que waruñoo xoolaat texte yi foofu. soit ñu ne bu ñu la defee motion de censure ñu daaneel la gouvernement bi di ñëw mënoo nekkaat premier ministre parce que yow lañ daaneel waaye dañuy def motion de censure ñu daaneel la président Diomaye bu ko neexee sa ëllëg sa mu ñëwaat indiwaat Ousmane ne la indiwaatal naa léegi Ousmane Sonko lu ngeen ci mën balaa ñoo toogaat trois mois euh, bay dem euh, ñu dissoudre assemblée nationale bi dootul amul amul léegi nag loolu yan député ñooy nangoo participer duñ ko voté mhm. dina am ay député yu nekk benn yoom dañ naan voté ma motion de censure man nekkuma si seen caaxaan yi ngeen nekk loolu moo tax ma ma ma ma ma jàpp ne coow li muy bëri yëpp ak yenn réaction yu bëri yëpp ñu ngi koy tuddee ñu bëri teguñ ko ci droit teguñ ko ci droit parce que bu ñu ko tegoon ci droit bu fekkoonte ñi ñi ngi koy doo ko tudd dinañ comprendre mais alerté woon nañu alerté waat alerteeti ku nekk kaa ngi wax maa ngi dégg maam jaara fam sax mi ngi bind naan moom sax waxoon na ne règlement intérieur bi dañ koo falsifié mm-hmm. waaye léegi lu ñu falsifié assemblée fi ñu toll ñoom seen bopp la ñu war a dóor ñoom seen bopp lañu lañ lañ lañ lañ lañ war a waxal